man Abdourahmane Diouf ak ñi ma àndal tey ci politique sama baat ci kaw musuma tooñ Sénégal musuma lekk alalu Sénégal musuñu ma jox poste poste ba ma fa nekkoon d'ailleurs nañ ma fa jëlee ba may gëstu nañ ma fa jëlee gëw ma ne mas nañ fa jëlee nit ci poste bu meloon ci Sénégal ci biir bu tooy noonu ci ku waxul deful nekk di liggéeyal pour Sénégal mosuma am passeport diplomatique salon d'honneur u Sénégal xaw nu mu mel même SONES ba ma fay nekk di liggéey oto bi ma fa yor pendant les quatre mois du woon oto DG DG so oto DG amatu fa woon ñu dem loué oto jox ma amuma privilège Sénégal Sénégal li muy yaatu yaatu yaatu amul terrain bu ñu fi daggal Abdourahmane Diouf bu xottu terrain wu cent cinquante mètres bu ñu fi daggal Abdourahmane Diouf amul kër bu ñu fi jox Abdourahmane Diouf amul carburant bu ñu fi jox Abdourahmane Diouf donc ñi leen tooñ lekk alalu askan bi di di naxaate nekk fi boobu ba léegi man bokkuma ci donc ngir yàlla bu ñu ma boole ci ñooñu gënuma leen nag mais bu ñu ma ci boole man je n'ai aucun aucun aucun privilège aucun privilège même bi ma ñëwee Sénégal jéem a investir dem jënd rajo def ci samay moyens investir dañ ko nangu ak yeneen ak yeneen yoo xam ne ay homme politique ñu ngi koy dund ngeen koy dégg ma koy dund te waxuma ko parce que dama ci bëgg a def ci ngor def li nga xam ne moom laa wasloo sama donc man je ne suis pas un privilégié de la République je ne suis pas du tout un privilégié de la République